asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi na ngeen def ñu bu baax di leen ziar bàyyi nañ ci jàmm alhamdulilah euh, tey nag benn astuce lañ bëgg a dikkaat boo xam ne bu am solo la mooy application bu ñu tuddee antivol antivol euh, lu am solo la mooy euh, par exemple boo nekkee ci lu mel ni xew ci lu mel ni xew wala foo xam ne bari na ni daal te sa sa téléphone déchargé nga xam ne si booy. booy chargé sa téléphone ni nga dàndante moom lu war a mat 5 mètres wala 10 mètres euh, day am solo nga am application bi nga xam ne si boo ko branché képp ko dikk ngir bëgg koo sàjj su ko débranché su ko ceppee ci chargeur bi rek téléphone bi day yooxu te bu yooxu code secret lay laaj avant muy bala ma noppi rek da ngaa def ko da ngaa dugal code secret boobu noonu muy soor a noppee te code secret bi yow rek yaa ko xam kon su waajee dikkee di bëgg a sàcc téléphone bu ko roppee ci courant bi rek. su prise bi dañee ci courant bi rek <clears throat> alarme bi day déclenché di yuuxu di yuuxu ba keneen ñuy dugal mot de passe bi su fekk dugaluñ mot de passe bi rek du nopp léegi da ngay dañ ñëw ci application bi koy def dañ ñëw Play Store bu ndikkee Play Store ñu ñu def recherche bu ñu tuddee euh, antivol antivol la ñuy recherche mi ngi nii boo ko cliquer mu génn la benn application bu ñuy wax antivol waaw mooy bii bii nii bii léegi bii mën nañ xaar tuuti téléchargement bi jeex léegi téléchargé nañ ko ba pare dañuy activer boo activer nga def ouvrir nga def continuer mu laaj la code PIN bu la laajee code PIN nga def sa code par exemple ma def sama code 2 4 8 0 daal di enregistré bu enregistré mu laaj la nga cose fii nii fii ci kaw da ngay coché boo coché ci kaw daal di bës foofu noonu mu laaj la alarme bi nga tànn alarme bi. sonnerie bu la neex ngay tànn fii quoi. léegi bii su ma tànnee ma def sélectionné bii nii su ma ma bañ a coché vibration bi fii nii parce que boo coché day vibré lu bëri bëri léegi da ngay bàyyi noonu léegi euh, euh, code PIN baa ngi noonu waaw ça y normalement léegi autorisé. autorisé autorisé autorisé autorisé léegi normalement voilà léegi il faut mooy def sama ko secret cinq huit zéro voilà léegi gis nga euh, saa su ma saa su ma roppee chargeur bi ku roppee chargeur bi rek euh, alarme bi day déclenché di sonné ba keroog ngay euh, def sa code secret léegi nañ xoolaat par exemple da ngay xool fa gis nga boo xam nga sama chargeur ngi ni maanaam boo sama téléphone mi ngi en charge xoola batterie ba ma nga ne ba 9 pour cent la gis nga charge su ndaw sa ca nekk man nañ dëpp complètement voilà léegi xam nga ni jëmbi application baa ngi nii waaye sama batterie mi ngi nii di chargé mi ngi nii gis nga tomb boobu noonu ci kawam naa roppi waat essayé waat léegi waa ji dikk na di sàcc sama téléphone daal di roppi sama euh, chargeur bu roppee rek lay euh, déclenché code secret 2 2, 5, ok voilà saa boo dugalee code secret bi rek mu noppi waaye tant que ngay dugal code secret bi day continuer di eh, di def noonu rek am na solo quoi loolu moo nekkoon application bi muy application bu ñuy wax eh, antivol nga xam ne day tere nit ki sàcc sa téléphone te kenn du ko yëg foo ko branché sori sori woo ko lu bëri képp ku ko ceppi même moo xam sàcc moo xam da koy sàcc moo xam sàcc ko daal waaye même même bu ko dindee ngir ngir càpp téléphone maanaam gis nga am 80 euh, pour cent cinq pour cent loo man di am daal pour cent mu gis ni moom bëgg naa ceppi sa téléphone ab diggante bu ndaw euh, su paree daal day cappalaat su ceppee rek da ngay gis day déclenché alarme bi day déclenché te tant que mu ciy def code secret du du du daal. loolu ma nekkoon vidéo tey bi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci topp gi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.